waaye askanu Ibrahima lay xettali si looloo taxoon mu war a mel ni doomi baayam ci bépp fànn ngir doon seen saraxalekat bu mag fa kanam yàlla bi leen yërëm te di sàmm kóllëre te ci liggéeyu saraxaleem joxe na bakkanam ngir dindi bàkkaari nit ñi ba yàlla baal leen gannaaw sonn na ci nattu yi muy daj mën naa dimbali ñiy jaar ciy nattu